alxadiisu saabicu wal ishruuna ñaar fukkeelu xadiis ak juróom ñaar nee na ani nawaasi ci sayduna nawaas bini samcaan doomi sayiduna samcaan radiallahu anhuma na yàlla boole leen gërëm nga déggee ci ne ñoom ñaar ñëpp hmm. ay saxaabi lañu hmm. nawaas hmm. bin samaan samaan bin xaalid bin amr alaamiriyu alkilaabiyu da ngay dégg ndaw si ñuy wax ne mos nañ koo may yonantu sallallahu alayhi wa ñu koy wax alkilaabiyatu mm-hmm. ñu ne dafa am ci soxnaa yonantu ñu ko nax mm. ne yonantu daal lim gën a bëgg mooy bu duggee ci yow rek mm. nga nga ne ko audu billahi min mm-hmm. xam nga loolu su ko jigéen mbëgg ma ne naxee moroomam jigéenam mm. mooy kañuy nax mérité nekk soxna yonantu mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam yonentu ñëwee mu daal di wax ne audu billahi mink wala bi duggee ci yonentu wax loolu yonentu ne ko laqad udti bi azim muslu ci ku màgg ilxaqi bi ahlik ñu ne bàyyi samaan bàyyi nawaas muy samaan ba mu ñëwalee yonentu sallallahu alayhi wa sallam eh, daal di jébbalu yonentu may ko ay dàllam mm. mu foon dàll ya mm. ñu ne mu daal di may yonentu sallallahu alayhi wa mbokkam fekk maanaam mbokkam nawaas mm. ñu ne ca la loolu amee mm-hmm. euh, wér naam wérut ñooñ siira danañ koy tudd mm-hmm. waaye lu wér daal mooy nawaas mi mm-hmm. doomi samaan la mm-hmm. moog baayam yëpp ay saxaaba yonantu la ñu mm-hmm. sallallahu alayhi wa wa sahbihi mm-hmm. wa ay xadis yu bari yoo xam ne jëlee na ko ci yonantu sallallahu alayhi wa sallama xërëm ci diine ak xërëm ci xam-xam nawaas ibnu samaan lu mu wax ani nabii mhm. mu ne jëlee na ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne mhm. albirru mbaax mhm. xusnul xuluqi mooy rafet jikko wal ithmu bàkkaar maa mooy loo xam ne xàkka sikk na déng déng na fi nafsika ci sa bakkan fii nafsika ci sam xel fii nafsika ci sa xol maa mooy loo xam ne xàkka créé na sikk sàkka akuk déngi-déngi fii nafsika ci sa bakkan wa karita ta nga sib an yettaliha ba yër ali yi ca loolu le nit ñi rawaahu muslim mbaax yi nga xam ne sama borom tudd na ko ci alquran ne wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan mbaax mooy bépp baat boo xam ne maanaam <clears throat> baax albirru su ko yaaram waxee baat la boo xam ne li muy tegtale moy yiw gu bari albirru kalimatun tadullu ala kathrati alxayri mbaax mooy rafet jikko rafet jikko sa digganteeg sa borom rafet jikko sa digganteeg jaami yàlla yi rafet jikko sa digganteeg sa borom mooy nga gërëm atteem yi mm. te jébbalu ñeel leen mm. lépp loo xam ne jóge na ci yàlla mm. neex na la mm-hmm. lépp lum digle nga def mm-hmm. lum tere nga ba mm-hmm. looloy rafet jikko sa diggante ak sa borom jógal julli nga jóg julli te doo tayal doo ci am benn gêne wala ak tiis mm. waaye da ngay kontaan sax ci julli ga mm. wa ju'ilat qurratu ayni fi salaa mm, su fekkee kii julli mi ngi tayal ci julli gi kooku mandargaam nifaaq la wa ida qaamu ila solaati qaamu kusaale yuraa'uuna annaasa bu dee asaka ñëw na doo ca nay bu koor ñëwee doo xalaat xiif doo xalaat mer mar waaye yaa ngi xalaat dégg nga hmm. euh, ngërmande yàlla hmm, hmm, rafet jikko ak sa borom it bépp dogal bu mu dogal te duwul ne dogal yëpp ay neex mu neex la yow ndax ibnu ata ilaahi dafa wax ne lépp loo gis mu gonge ci yàlla waa lépp loo gis mu xew ci yow xamal ne yàlla mooy identifié wu ci mu identifié boppam rek hmm. moo lay moo lay xamal boppam rek hmm, hmm, léeg-léeg mu xamal ñu boppam ci jamaal mu neex lool ci suñu alal ci suñu ñoñ waa ci suñ jëmmi bopp wala ci suñ societé sax léeg-léeg mu xamal ñu boppam ci loo xam ne nii ci zaahir dafay naqadi lool ci suñu alal nit ki ñàkk ko mm, mm-hmm. wala ci suñ ñooñ mm-hmm. wala ci suñ jëmmi bopp mm-hmm. waa ci suñ société at yi ñu weesu nit ñi xam nañ ci dara ndax feebar yi fi jaar ak ak it xare yi nga xam ne joguñ fi ñoom bu dee rafetal jikko ak doomu aadama yi mm. mbaa ak mbindeefu yàlla yi mm. mooy loo joxe doo lor kenn tey muñ lor te it fuñ la séen mm. gis ne sa kanam a ngi ubbeeku mm. waaye tëjuwut mm-hmm. loolay xusnul mm-hmm. Mm-hmm. nag ka ca gën a xëy mm. <clears throat> mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi rafet jikko ci moom nag mook rafet jikko ci sa borom duñ soree ndax topp ko mooy topp sa borom waaye nag des koo war a sopp hmm. des koo war a bëgg hmm. des koo war a défendre hmm. nu raw nu ñuy suñ bopp ak suñuy wayjur bu loolu weesoo ki gën a suñ baax mooy suñuy wayjur ndey ak baay wa barran bi walidati la yàlla wax ne moom la Seydina Isa wax ci xaqi ndeyam wa barran bi walidati walam yaj'alni jabbaaran shaqiyya wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana kon mbaax mooy rafet jikko al ismu nag mooy safaanu birru bàkkaar mooy safaanu mbaax tax yàlla ne wa tacaawanu ala al birri wa taqwee wala tacaawanu ala al ismi wal udwaan lépp loo xam ne hmm. yaa ngi ko bugg a def hmm. te yaa ngi ciy déng-déng hmm. sam xel dalu ca te boo sañoon nit ñi duñ la ca fekk ndax loo xam ne ku la ci gis xeeb la la ku la ci gis ŋàññi la xamal ne bàkkaar la loolu nag atteem duwul atte boo xam ne qaacida la waaye boroom xam-xam yi dañuy wax ne daabit la mm. daabit la mm. min dawaabit maanaam mm. nit ku normal lay waxal moom yonent bi nit koo xam ne xolam mucc na normal na conscience am tranquille na kooku su naree dugg ci lu neexut yàlla xelam du ca dal su naree dugg ci lu jaaduwut dana am mbañ ba du bëgg koo ca fekk loolooy ku normal mm-hmm. waaye ñi féttéerlu mm. nga xam ne seen xol yi waw nañ mm. ñooñu amatuñu conscience boobu mm-hmm. Mm-hmm. amatuñu conscience boobu ñoom waxuma amuñ ko waaye danañ dem sax mm. bay tiitaroo mooy wal ismu bàkkaar maa mooy loo xam ne xàkk def na sikk ak déng-déng fii nafsika ci sa bakkan ba karita ta nga bañ hmm. an yettalia ba yërët ali ca loolu le anaasu nit ñi muslim dinañ hmm, hmm, jëlee ci hadis ji ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko jox jawaamiul kalimi kàddu gu gàtt yenu maanaa yu bëri albirru xusnul xuluqi loolu boole na lépp lu mu boole waaye génne na lépp lu war a génn mm-hmm. baat la boo xam ne mm. bu ko nit ki doyloo woon mm. doy na walis bépp jàngale mm-hmm. mbaax mooy rafet jikko mm. rafet jikko ak sa borom mm-hmm. rafet jikko ak sa morom waxuma la rafet jikko ak sa moromu mbindeefi nit waaye ba ci sa moromu mbindeefi bàyyi may ñu ko yonentu jàngale ba ci jamaat yi sax garab goo soxlawu sax doo ko dagg Mm-hmm. kon hadis ji mu ngi ñuy ñaax mm-hmm. ci rafet jikko mm-hmm. nga xamee ci ne saa yoo rafetalee sa jikko rek yaa ngi ci mbaax saa yoo rafetalee sa jikko yaa ngi ci mbaax ñaareel bi hadis ji ñi muy waxal ci ne boo bëggee dugg ci dara seetal li nga yëg rek bu fekkee lu bon la hmm. te ngay nit ku normal hmm. da nga yëg ne sa xel mi du ca dem hmm. du ca dal bu ko defee na nga ba ko dem ci li sa xel dal yenentu mu ne daa ma yaribuka ila ma la yaribuka baal li nga sikk dem ci li nga sikkut ni ko Seydina Xasan waxee ci xadis jim solo ci maamam sallallahu alayhi wa waaye ku bawut lim sikk hmm. dana dugg ci yu lënt hmm. dugg ci yu hmm. dana dugg ci lu xaraam ni ko yonent waxee ci yeneen xadis jàngee ne eh, ab jullit dafa war a ñoŋal ab deram ba nga xam ne non seulement du dugg ci bàkkaar waaye du dugg ci loo xam ne sax même su dut nit ñi danañ foog ne bàkkaar la te der bi kat moomu la ko mm-hmm. jàngoon nañ ko ci alkulliyaatul xams mm-hmm. Mm-hmm. yi nga xam ne jullit bu ne da ko war a sàmm muy diine ak bakkan ak xel ak xalal ak der hmm? jullit dafay am bañ ruus waaye ab jullit du puugarewoo mooy dem nañ nag ba ñu bari ci ñun ñuy tuddoo jullit hmm. danañ nekk ci télé bi mbaa ñuy suñ bopp hmm. di wax loo xam ne ak euh, kàddu yu safaanoo la hmm. mbaa di jëf-jëf yoo xam ne jëf yu safaanoo la ba noppi di ko tiitaroo ku mel noonu moom xol bee wow kallaa bal raana ala qulubihim maa kaanoo yaksibuuna loolu la alquran wax ndax nit ki defee mbon dafa am tomb boo xam ne moom la ñuy tomb hmm. boo xam ne mooy lëndëmal xol bi hmm. walla une partie ci xolam hmm. <coughs> su ko tuubee ñu raxas ko su ko tuubut mu ne fa su defaatee beneen ñu tombaat su defaatee beneen ñu tombaat dana dem nag ba tomb yi muur xol bi loolay raynu borom bi ne kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuuna Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. loolay benn partie xadis bi wala mooy xadis ju njëkk ji ndax ñaari xadis la boole waaye <clears throat> maanaam yi fa jege woo bu njëkk bi Seydina Nawaas moo ko solo ci yonantu xadis jàng ci muslim ci kitaabul birri wassilati wal ñaareelu mm-hmm. xadis ji mu ne wa an waabisata mm. jëlee nañ ci sayduna waabisa mm. bin macbadin mm. doomi macbad mm-hmm. na yàlla gërëm ko waabisa mile saxaabi yonantu la sallallahu alayhi wa bu mag bu bëgg xam-xam gannaaw yonantu sallallahu alayhi wa dëkk na kuufa mm-hmm. gannaaw ga mu dëkk raqa mm-hmm. ba foofu la gaañoo mm-hmm. Mm-hmm. ca Shaam qaala mu ne mm. ataytu dikkal naa mm. rasulallahi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mm. fa qaala yonentu ne ma jiita dikk nga tasalu di laaj anil mbaax walis mi ak bàkkaar mm-hmm. jiita ndax danga dikk mm-hmm. ndax laaj mm-hmm. dana dagan ñu xasaf adaatul istifhaam gi mooy ajjita la bëggoon wax jiita ndax danga dikk tasalu dima ma laaj anil birri wal ismi mbaax ak bàkkaar qultu naam ma ko waaw qaala mu ne ma istafti laajal qalbaka sa albirru mbaax hmm. matma annat hmm. mooy la dal ilay jëm ci moom hmm. nafsu bakkan watma anna dal ilay jëm ci moom alqalbu xol nafsu fii mën nañ ko firee bakkan waaye mën nañ ko fiire xel li dal xel te dal xol looloy mbaax walis mu walis mu xaaka mooy li déng déngi na fi nafsi ci bakkan mhm. wa taraddada tam déng-déngi mhm. fi saddadi ci dënn mhm. way na aftaaka naasu su dee sax ni ñu xubbee nañ la ne la baax na wa aftooka ñu xubbee la hmm? nee na xasanun xadiis ju rafet la raway naaw solo nañ ko fii ci musnadu limaam ahmad wa daarimi ak mm-hmm. musnadu imam daarimi mm-hmm. bi isnaadin xasanin xasan mm-hmm. ah, <coughs> dañ ko yéegal ci euh, saxiix mm. amul saxiix mm. ju euh, bëjjanteeg moom danañ ko jox xàtteem xadis benn mu nekk saxiix benn daif mm-hmm. saxiix dafa am ay catégorie mm-hmm. saxiixun li nafsihi mm-hmm. saxiixun li gayrihi xasanun li nafsihi xasanun li gayrihi ya ca suuf yëpp nag daif la ba ci mawdu sax léegi ñëwee nañ ko tuddee xadis moom mawdu du noonu xadis ji nag am na qisa xise ji ki ñu koy nettali mooy Seydina Waabisatu ci mm-hmm. boppam mm-hmm. al mm-hmm. ci banu asad la bokk wax na ne ataytu mos naa dikkal naa rasulallah yonentu sallallahu alayhi wa mm. ana uridu te man maa ngi bëgg mm. an laa adaa du ma bàyyi shay dara mm. min al mbaax walismi ak ci bàkkaar hmm. illaa saaltuhu anhu hmm. lu dul laaj naa ko yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. man bi ma ñëwelee yonantu fasuma yéenee daraay mbaax lu ma bëgg a xam lu ko laajot mbaa lu ma war a xam lu ma ko laajut fasuma yéenee it ba ci daraay mbon loo xam ne bëgg naa koo xam wala war naa koo xam lu ne laaj naa ko loolu mooy nekk sama yéene mm-hmm. ba ma ñëwee nag waaye waxaw la wu fekk mm. nekk na ci wàllam wër na ko moom yonantu mm. isaabatun mbooloo mm. minal muslimina ci jullit yi mm-hmm. saxaaba yo ngi ko wër mm-hmm. yestaftunawu ko laaj di wut fatwa moom fa jaaltu ma euh, tàmbali ataxataahum di leen jéggi xaaloo ñu ne yaa waabisatu mm-hmm. baxal li ngay def yow waabisatu mm-hmm. ilayka yaa waabisatu an rasulillah mm-hmm. mm? maanaa mm. baxal li ngay def yow waabisatu mm. yamal sa place moytul dégg nga bul gêner bul déranger an rasulillahi yonentu sallallahu alayhi wa sallam qultu ma ne leen daawuni baleen ma fa adnuwa ma jege hmm. ba ma jege minhu ci yonantu sallallahu alayhi wasallam dama ko bëgg a jege hmm. fa innahu naka yonantu sallallahu alayhi wasallam hmm. ahabbu nnaasi mooy ki gën a sopp ci nit ñi ilee jëm ci moom jëm ci man an adnuwa ba ma jege minu ci moom ki nga xam ne moom laa gën a bëgg a jege ci nit ñi mooy yonantu ndax nit ki kim sopp daf koy bëgg a jege kim soxla it daf koy bëgg a jege ngir wax ko soxlaam waaw fa innahu naka yonantu sallallahu alayhi wa sallam hmm. habbu naasi mooy ki gën a sopp ci nit ñi ilay jëm ci man hmm. an adnoo ba ma jegeeg minu ci moom xaala hmm. yonantu ne leen da'u waabisata bàyyi leen waabisa udunu yaa waabisatu jegeel yaa waabisa nee na yonantu wax ne loolu marrate ni ñaari yoon aw thalath wala aw thalath wala ñett qaala fa danawtu minhu ma jege ko neena ma jege ko xata mm. qaadtu bayna yadayhi ba ma toog ci kanamam mm. fa qaala mu ne ma mm. yaa waabisatu e yow waabisa uxbiruka ma xabaare la ma wax la li la fi indi mm-hmm. aw tasaluni wala ma bala nga laaj mm-hmm. Mm-hmm. qultu ma ne ko laa bul ba ma laaj bal li fi nekk kay axbir nii wax ma li ma fi indi fa qaala yonentu sallallahu alayhi wa ne ko jiita dikk nga mm. tasalu nii di ma laaj mm. anil biri ci mbaax mm-hmm. mi ak bàkkaar mm-hmm. qultu ma ko waaw ma mm. naam waaw mm-hmm. fa jamaa mu dajale moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam anaamilahu ay baaraamam yu tedd yi alayhi salaatu wa fa jaala mu tàmbali yankutu bihinna di leen eh, ni ko ni booy booy kii sa baaraam ni cop mm-hmm. cop mm-hmm. yan ko yan ko tubbihin mm-hmm. di leen cop ci sadri ci sama sama sama dënn waaw yonent bi jël baaraam mi naan ko nii ci dënnam bi ah pour wan ko ne ko wa yaqulu mu naan ko yaa waabisatu e yow waabisatu is wa yaqulu mu naan yaa waabisatu e yaa waabisa istafti laajal qalbaka sa xol laajal nafsaka sa bakkan maanaam yonentu sallallahu alayhi wa sallam yo hmm. mu ngi koy mu ngi joxoñ di laal dënnam bi hmm. maanaam mu ngi ci jublu xol ba rek hmm, dégg nga naan ko istafti laajal xalbaka sa xol wastafti laajal nafsaka sa bakkan salaasa marratin wax ne loolu ñetti yoon ba pare ne ma albirru mbaax matma annat mooy li dal na mm-hmm. ilay jëm ji moom mm-hmm. nafsu bakkan mm-hmm. nafsu xel nafsu xol walis mu bàkkaar nag maa mooy loo xam ne xaaka def na sikk fi nafsi ci bakkan bi wa taraddada te mu déng-déng fi sadri ci dënd bi wa in naasu bu dee sax nit ñi ubbee nañ la wa aftawka ñu ubbee la waxam jim ne ko ji eh, tasaaru anil birri hmm. kooku jumla xabariya la hmm, hmm. am na ñu ne ci zahiram waaye ci biiram laaj la waaye bu dee ci xadis ji niñ ko màngee léegi moom du laaj ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam daf ko laaj ne ko wax ma wax la wala nga wax ma mu ne ko mu ne ko wax ma mm-hmm. yonent bi wax ko mm-hmm. léegi kay li ñu war a laaj mooy mm-hmm. ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam na maanaam ni yonentu def ba xam li ne ci xolu waa ji te waa ji waxagul ko dara am ñu ne mën naa am yonentu dégg na ne kenn ci délégation bile am na laaj bëgg naa laaj li loolu lu mën a nekk la wala ci firaasatu nabi sallallahu alayhi wa sallam dafa gis waa ji rek jàpp na lii la ma war a laaj ndax ni mu gisee waa ji ak ak meloom am ñu ne déedéet loolu yëpp dafa sori yàlla moom wax na ne wa maa yantiqu anil hawa yonent du tudd yëpp du tudd fekk bànnee a tax nu woy laa waxyu nu yuha lu mu wax rek waxyu la kon yàllaa ko xamal li waa bëgg a laaj waaw yonentu sallallahu alayhi mm. mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. hmm? wa nag wax ko ne ko istafti qalbaka laajal sa xol al istiftaaw mooy sàkku fatwa ndax fatwa ixbaar la xukmin sharciyin waaye xol bu la mënta wax mm. li daga nag li war mm. mën na laa dimbale ba nga xam ne lii nga bëgg a jublukat baaxut mm-hmm. ndax lu baax ku koy def mm-hmm. sa xel daf cay dal mm-hmm. moo tax mu ne albirru matma anna ilayhi alqalb watma annat ilayhi nafs watma ann mooy loo xam ne xol bi sax na dal na ci ah al itminaan loo xam ne dal na ba yëngatuwul ci ba déng déngiwut loolu booy julli sañu la irka xata xata mm-hmm. tatma inna rakian mm-hmm. waaw nga rukool ba yëg ne waaw dal nga mm-hmm. ba yëg ne dal nga loolooy mbaax safaanu loolu nag mooy bàkkaar yoo xam ne yaa ngi koy bëgg a def waaye sa xel dalul ci yaa ngi koy bëgg a def waaye am nag déng-déng ku nekk ci sa xol wa taraddada fi sadri ay fil qalbi rek li yàlla wax ne fa innaha la taamal absaar walakin taamal qulubu allati fi sudur yaaram dana tudd sadru jublu ca qalbu dana tudd nafsu jublu ca qalbu dana tudd nafsu jublu ca aqlu wa in aftaaka naasu wa aftawka nag tawkiit la mooy luñ la mën a wax mbon moom mbon na rek lu bu ko ñëpp doon defit waaw bu ñëpp da nga gis koo xam ne dana bëgg a def dara loo xam ne nii lislaam daf koo tere hmm. dana woo ay nit hmm. ñu rafetal ko ko hmm. ne ko ah loolu kay darura la comme yéen ngi nekk ci réewu tubaab yi kay nangam nangam waaye yow mi ñuy wax loolu li tax ku nekk nga koy laaj li ñuy tuddee shopping fatwa wala fatwa shopping mooy wane na rek sa xel mi dalut kon nag ba ko dem ci li sa xel dal waaw mm-hmm. ak luñ la mën a wax mm-hmm. ne ci dëkk bi lañ nekk mm-hmm. dafa am loo xam ne nangam nangam waaye yow xam nga ne lii xel sam xel dalu ci bakk bu ko def mbaax mooy loo xam ne xel daf cay dal dégg nga xol dal ci waaw kon danañ jàngeate ci xadiisu ñaareel ji lañ jàngee ci xadiis ju njëkk ji rek ci amuk solo rafet jikko mm. waaye xadiisu ñaareel ji nag mm. dañ ci jàngee rafetu jikko yonantu sallallahu alayhi wa sallam mm. mooy su rafet jikko moom ngay dimbale mm-hmm. ndax yonantu yàlla faw ne ko rafet jikko su doon naaru góor yaa ko mm-hmm. wa innaka la ala xuluqin mm-hmm. ko yow am nga jikko ju rafet de yaa ngi ci kawam la ko wax la gis di yonantu sallallahu alayhi wa sallam bi ji ñëwee mu wax ko li mu bëgg mu daal di ko laaj ci sujet bi nga xam ne moom la bëgg a laaj pour mettre ko à l'aise ba nga xam ne kii lu mu bëgg a laaj dootul gêné wu mm-hmm. ah, ubbeeku googit mm-hmm. ci ki la dikkal mm-hmm. luñ sàkku la yonentu nag jàngal ñu ko hmm? yonentu jàngal ñu ko wa alihi wa sahbihi jàngee ci xërug saxaaba yi ci xam seen diine waa bi sa jamono mu nekk ak yonantu yàggut mm-hmm. nawaas tamit jamono mu nekk ak yonantu yàggut mm-hmm. waaye bëri na luñ solo ci yonantu mm-hmm. sallallahu alayhi wa ndax xër ci xam ndax xër ci diine istafti qalbaka it mi ñuy wan amuk solo xol boo xam ne ni sell na ndax xol bu sellee rek yàlla dana ko ilham bu ko defee mu xam baax xam mbon mm-hmm. mooy la ñuy wax alqalbul mulhamu wala mm-hmm. an nafsul mulhamatu mm-hmm. fa alhamaha fujuraha wa taqwaha bakkan ci njëlbeen bu fekkee ne jaam bi euh, bëgg naa dem ci boromam wala jaam bi dafa war a dem ci boromam waaye ci njëlbeenam bakkana mën koo mën mooy an amaaratu bi suuyi ba xam ne mel na ni buur la sax moom bakkan bi amaaratun bi suuyi ak digale xaakoonu mbon la mm-hmm. Mm-hmm. bu jaam bi nag yeewoo mm. ba eh, soobu jëm ci boromam mm. bu bëggee def dara bakkanam yeddu ko mbaa mm. bu defeelu lu bon bakkanam yeddu ko bakkan boobu mooy an nafsu lawaamatu mm-hmm. laa uqsimu bi yawmi alqiyaamati wala uqsimu bi nafsi lawaamati bakkan bu toll foofu nag yàlla daf koy yenkawal mbaax yenkewal ko it safaanu mbaax ba mm-hmm. bu bëggee dugg ci mbaax mm-hmm. mu yomb mm-hmm. bu gisee safaanit it xam ko ngir mën ko moytu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaaha wala qad aflaha waaw bakkan boobu nag yàlla yankawal mbaax mm. muy jëm ci boromam di ko tudd mm. di ko fàttali ko fu mu toll mm. Euh, ci xelam ak ci xolam hmm. ak ci làmmiñam hmm. bakkan boobu mooy dem ba am lit mi inaanatu li eh, mooy ba am tumaninatu wala hmm. lit mi inaan al itminaan muy ak dal alladina amanu wa tatmainu qulubuhum qulubuhum bi dicrillahi ala bi dicrillahi tatmainu al qulub looloy an nafsu al mutmainatu an nafsu al mutmainatu nag ci boppam la ne woon hmm. ba léegi am na litmi inaanu ak yàlla yàlla hmm. nag ne ko irji'i ila rabbiki nag hmm. léegi nag yegsi na nan ngay ñëwee ci sama xadara raadiyatan muy annastu raadiyat lu gongee ci man rek neex la wax nañ ne bokk na ci xusnul xuluq lu gongee ci yàlla neex la bu dee sax neexu ci biti waaye boo xoolee ci biir da nga xam ne dëgg-dëgg lu neex la war a dox Mm-hmm. boo nekkee radiyatu nag mm. ci ngay nekk mardiyatu mm-hmm. bakkan bu nekkee radiyatu mm. ci lay nekk mardiyatu mm-hmm. maanaam yàlla dana ko defal tawfiq ba lu mu defati mu neex yàlla góor ga mu ne doo nafsu bi lu nekk mardiya fekk nekkul radiya boobaa nag la jaam bi mën a tuddee boppam jaam udux fa dux yaa ayyatuha nafsul mutmainna turji'i ila rabbiki mm. radiyatan mardiyatan fa duxuli fi ibadi wa duxuli jannati waaw moom toll na foo xam ne seytaane mënatul ci moom dara mm-hmm. inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan mm-hmm. waaw kéeg féeg jaam bi yeggagul foofu nag mm-hmm. mooy boo woy boppam jaamu yàlla rek waaye yàlla mu booleegul ko ci ibaadam ndax nee na ibaadam yi seytaane mënul ci ñoom dara fadxuli fi ibaad yi mooy kooku bakkan boobu bokk na ci annufuusul kaamilatu hmm? wax na ci ne ko innama yatazakkaru ulul albaab mm. zikru moom mm. ñëpp mën nañ ko mm. tazakkur nag ulul uqulil kaamilati ñoo ko mën waaw fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati ñu ne nafs boobu nag mooy an nafsul kaamilatu nañu ko yàlla boole ma waaw mm-hmm. istafti qalbaka mm-hmm. Mm-hmm. bu ko defee saxaaba yi seenug laaj toujours pour mën tatbiq sharia la mm-hmm. bokkul ak ñun ñi nga xam ne dañuy laaj rek pour laaj mm-hmm. ñoom dañ daan laaj pour mën a tatbiq li nga xam ne mm-hmm. ñoom lañ leen moom lañ leen ni nga xamee ni it li sa xel dalut waroo caa dugg naka noonu it buñ la laajee masala te amuloo ci certitude bul wax nit ñi loo xamut baal ba mu wóor la ni ni nga ni nga koy defee ci sa bopp noonu nga ko war a defee ci ak nit ñi mm-hmm. maanaam koo xam ne ku xam la ñëpp di ko laaj mm-hmm. bu ko bu ko loolu yóbboo mm-hmm. mu dugg ci lu mu xamul wala lu muy sikk sidna abdullah ibnu amar mas nañ koo laaj euh, dëggal sax euh, salim mas nañ koo laaj mu ne mu ne mu wax mu tontu loola bu ko defee it déglul sa xol li daf lay dimbale rek hmm. ci lu dalul sa xel nga fexe ba mu dal hmm. ba nga fexe ba xam ko hmm. waaye firiwul ne e, lépp loo bëgg a def rek e, da ngay seet bu dalee sa xel rek nga def bu dalul sa rek nga baax bu dalee sa xel te fekk amuloo ci dalil tamit demal wuti dalil bu dalul sa xel nag baxal moom ba ba nga am ndax atte yi kat e, ci ay adillatu la tegee mm-hmm. waaye du rek ci lu eh, nit ñi siiwee wala lu la neex rek mm-hmm. lii daabit la ne mm-hmm. loo bugg a def gannaaw dalul sa xel bu ca dugg bu ca dugg su dalee sa xel nag te nga am tegtal ne lu dagan la nga def ko soo amul tegtal nga wuti ko yal nañu yàlla may dégg may ñu topp ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin mm-hmm. wa ala alihi wa sahbihi wa sallama mm-hmm. alhamdulillah